baax na c'est bon mbokk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ginnaaw tey ci subaak léegi ñu doon déglu ki nga xam ne moom mooy suñu kilifa gi di Cheikh Bara Ndiaye moom nag dugg na ba génn dañ koy bàyyi mu daal di wax ak askan wi ci li nga xam ne moom lañ ko doon toppee depuis boobaak léegi kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax di la masaw itam waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu Sénégalais yépp di leen mastaw parce que tey mun naa wax ne peuple Sénégal bi yëpp seen xel mi ngi woon fii ci DIC euh, maa ngi leen ci mastaw bu baax a baax di mastaw tamit euh, suñu mbokk yi nga xam ne ñëw nañ fii ci bunt bi pour soutenir ma ak suñu mbokk patriote yi nga xam ne ñëpp ñëw nañ fi ñoom sëñ Mara Niass ñoom Bayna Gueye ñoom euh, maa euh, nu mu tuddati sëñ Moustapha Diouf Lambaye gis naa ko fi ñoom Mam Paate ak Lamiñu Daaru ak sëñ Assane Mbacke ak euh, mboolem ñi nga xam ne yëpp rek honorable député Cheikh mhm. na appel am gis naa message am maa ngi sant waa Touba tamit mhm. particulièrement xalifa général de Mouride muy Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te wér mhm. Euh, ak teg ci sunu sëriñ tamit sëriñ Moustapha Mbacke mu Cheikh Abdou Sidil Makhtar ak sëñ Abdou Samad. Mhm. particulièrement tamit Cheikh Bassirou Mbacke mu sëñ Abdoul Khadir. Mhm. Euh, ñoom ñëpp lu coow li tuuti tuuti ku ci nekk soxla woon nañoo xam lan la. Mhm. ndax sa njaboot bu nekkee fenn nga dégg coow. Euh, ñu laaj lan la. ak sama njaboot sama famille bopp tamit sama nijaay seexloo ak sama mboolem membre famille. ak waa kër sëñ Darou Assane Ndiaye waaw maa ngi parce que nag man damaa mm-hmm. nekk réew ma jógee <laughs> bu ma yëngoo rek réew mi mooy yëngu moo mm-hmm. même avocat yi tamit. Mm-hmm. Euh, maître Moussa Sarr mi ngi nii taxaw. maître Bamba Cissé. Euh, fii la jógee ak moor Mor Parkin tamit ci suba depuis suba ak Mbaye Fall bu ay de Tikër. ak sama avocat metre Abdourahmane Diallo. waaw sëñ mu Modou Mbacke si Touba ñëpp rek maa ngi sant sénégalais yëpp voilà loolu laa mënta woon a ñàkk wax sax moo tax ma ñëw taxaw pour waxtaan wax loolu parce que boo fekkee danga jóg xelu ñëpp jëm fii boo génnee di nga wax génn nañ alhamdulilah euh, ñëpp xam ko mhm. waaw ak Moussa Bane am na rakkandooy Bane boo xam ne mu ngi fi woon ñoom ñëpp ñu ngi fi woon. waaw d'accord ngi seetaan sa soppe yi ñoom ñëpp itam bëgg nañu xam exactement euh, li nga xam ne moom la la doon toppee fan la mujjee. waaw euh, euh, maa ngi nuyu tamit groupe Walfadjri maam Biram Wàcc ak ñoom Salma ñoom ñëpp Sénégal yëpp daal rek pour mu interview bi bañ a gudd. Mhm. waaw li ñu doon toppee tey dafa nekkoon affaire diffamation man ak euh, mën naa wax sax mademoiselle Faye laa koy mademoiselle Faye laa koy wax waaw foofu laa yem euh, euh, ñun ñaar tey biñ ñëwee dañ ma defal audition biñ paree moom mu ñëw ñu defal ñu confrontation loolu moo tax kii bi yàgg pour ñu bokkale enquête bi mais xam naa loolu suma avocat yi ñoo ma ci gën a mën a prononcé parce que enquête mbirum yoon la. du ma si bëgg xam fu may tàmbalee ak fu may yem. Euh, mais li ma mën a wax daal mooy suñu jotaay bii taxaw tey muy ñoom sëñ Assane Mbacke muy sëñ Cheikh Thioro muy ñoom Mara muy làmmiñu daaru muy ñoom Diop Taïf muy njaay Touba ak mbooleem patriotes yi tey ku xool di nga xam ne am na lu am Sénégal loo xam ne musta am mm-hmm. muy parti au pouvoir bu taxaw ci buntu buy toogaanu ci buntu commissariat. di régler ab problème. Mhm. defe naa ne loolu kenn mësu ko gis. Mhm. Euh, loolu benn la ñaareel bi nga xam ne am na si mooy man bis naka tey daaw euh, maa ngi woon central nekkoon ci loxo yoon. Mhm. police moo ma soxla woon bi may jël si jël si bu violent la ma jël si. ay fetal la yore ñëw dajji sama kër. Euh, yor dóor sama biir kër ay grenade lacrymogène te pourtant même police boobu moo ma woo tey ma ñëw wuy si même citoyen bi police soxla woon moo nekk man mii taxaw kon donc avancement bi nga xam ne am na mooy ñu wooma ma ñëw loolu tamit euh, lu ma ci remarqué la ñaareel bi nga xam ne remarqué naa ko mooy euh, ñun dañ doon xeex Sénégal pour euh, justice am fi pour dëgg am ci penc mi dëgg nag ñu ci yonante bi lañ ko jànge mooy bu ñu tëralee aw yoon ku am doole ak ku ñàkk doole doo ko xam ku am ay mbokk ak ku ko amul doo ko xam